spécialité du droit en tout cas ñi ci ëpp ils l'ont dit bu fekkee ni la Cour suprême ne s'occupe que du contenant mhm. de la forme est-ce que le juge Sabassi Faye a dit le droit il n'y a pas débat du tout mhm. day ñëw confirmer ko mu dem waaye est-ce que loolu mooy mooy li war a xew est-ce que loolu moo nar a xew léegi loolu bu xew lan mooy xew yàlla xam mhm. moi je reste convaincu que li gën na ñëpp préparer seen ay carte d'identité préparer élection yi en se disant yal na yàlla bettee Sénégal xéwul bu toll ni le 17 cour suprême ne wuy Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiches am. am nga ci yaakaar ah le 17 cour suprême ne Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiches yàlla yàlla de yàlla de mën na lu ne. Mhm. yàlla sunu borom. Mhm. mën na lu ne. parce que yàlla yàlla mën ngaa toog sax xëy suba am intention bu bon mu roof la dara nga tëdd ba guddi mu am lu mu la won mhm, tey jii nii damay ñaan yàlla sunu kilifa réew bi président Macky Sall ñi mu àndal. damay ñaan yàlla bu nu demee ba ne ba ne tiim nañu la di set yàlla roof leen ñoom ñëpp ñu àndandoo gént Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nu dee ay jullit xulil mhm. yàlla leen yàlla baaxe loolu parce que sax ñun ay Sénégalais yéene bu baax rek la am ci ñoom mhm. yàlla na leen yàlla baaxe muy magistrat di di autorité ministérielle di ku bokk APR président Macky Sall njabootam ñoom ñëpp laa wax yàlla na leen yàlla baaxe mhm. xéwale leen ñu gént Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais loolu loolu dimension la génn yéen gént yonent bi. dimension la xéwal dama leen di ñaanal. Hmm, waaw am nga may ñaan yàlla baaxee leen loolu parce xam naa ne ñoom bu leen yàlla xéwale leen ñu gént Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci nangu bañ a nangu ci gëm bañ a gëm xulil jàpp na ma ñi ci ci li ñuy gis comme jullit lañ won hmm. amaana bu ñu xëyal di set daan ne ah gars nañ nañ kii dañ ko bàyyi mu bokk rek waaye. ñu si woon je je je je léeg-léeg nit dama pas asan tu rêvasses. Mm-hmm. bàyyi sa gént yi ngay def je dis non yëfi nit la moi je dogmatique. Mm-hmm. sama julli matul sama jaamu matul sama voilà mais gëm naa ne yàlla moo la yàlla sunu borom moo yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo yónni cent vingt quatre mille prophètes doo na Isa ak Seydina Moussa waa léegi ak Ibrahima ak ña ca li fi ne moo di ne ci borom boobu laay wakkilu ne yàlla yàlla nga def ba le 17. jàmm rek am Sénégal yàlla nga def ba le 17 Ousmane Sonko jël ndam li ci kaw régime APR bi te nga def ba waa APR nangu ko ak xel mu dal ak ak ak barke gi yiw muy ndamu Sénégal yàlla ki yàlla def. ok mais dafa dafa am lu attiré attention tamit mooy euh, mbir mi boo ko xoolee ba ci biir euh, jàkkaarloo la. Mhm. entre état bu Sénégal ak euh, Ousmane Sonko te jàkkaarloo bi état bu Sénégal am na lu toll ci di avocats yoo xamante ne indi nañ ko pour mën a jàkkaarloo ak moom. bon pour man je me dis à naka la mën a jaralee euh, nguur <laughs> ñu mobiliser autant de moyen pour euh, nit ki bañ a bokk rek ci élection lan la est-ce que dafa dañu bëgg wane ne non parce que dañu bëgg ñu respecter yoon moo tax lépp lu mu jar dinañ ko def pour nga bañ a bokk walla benn volonté la boo xam ne dañu taxaw rek ne non kii daal warul bokk du bokk lu mu jar dinañ ko ci def. ñëg ñëg ñëg ñëg saa yi ñëg dafa grave de ñëg nit dina ñëg nii. Mhm. def loo xam da koy réccu après. toogaat daan ni man lan moo ma poussé ma def lii diggante Ousmane Sonko ak waa APR benn affaire rek la. Mhm. ego fort. ego fort c'est quoi waa APR taxaw ne waa du bokk ah moom tamit mu def résistance mu damay bokk mu def résistance. damay mhm. bokk ñu ne ko di nga xam ne ñoo yor ñoo waaw di xam ne ñoo yor réew mi mi. waaw ñoom tamit dinañ xam ne yàlla yor réew mi. Mhm. Ah, benn instant yàlla moo yor réew mi. léegi nag ca xeex ba. la Ousmane waroon def ak na ma ko waroon defee loolu yëpp am na ma ci position. wax na ma ko leer na nañ. wante au delà a nekk ci dëgg. barke bàyyi lay alxel la ma gëm la Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg face à cet état là face à ce régime là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire gannaaw ñaan bi ma ñaan ak lépp waa Sénégal danoo war a taxaw nan la ñu taxawee. ci capacité à diir à l'état stop est-ce que jusqu'ici les gens peuvent le faire. ça n'a jamais marché. Mm-hmm. ça n'a jamais réussi ça a failli réussir en 2021 mais da doon nekk lu xaw a illégal tuuti. Mm-hmm. et risqué aussi. et risqué aussi. Mm-hmm. donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire je pense il faut rester sur la logique après maa ngi dégg ñi ay nit naan xeex rek mais man sam problème mooy élection yi ñu jëm nii incha allah. ñaanuma yàlla dara yàq ko parce que ñii dañoo war a dem ci jàmm ak salaam. te bu ñu demee élection dañuy dem. bu soobee yàlla dana daanu dem. naa la loo xam ne dana la retard loo tuuti baa xam nga ne bu desoon lu dul waa APR war a voté sax. Mhm. le changement est ci kàttanu yàlla. bu desoon sax lu dul waa APR kese war a voté ñoom seen bopp nit dana fa falu ba pare jàpp leen ñoom ñëpp. Mhm. ña fa def ñëpp lay jàpp. parce que xamul tax mais il va falloir faire face à des millions de Sénégalais après l' élection de 2024 incha allah ku mën ci toog ci bopp réew mi di nga def face à des millions de Sénégalais. te li woon day woon ni. lii ñu jot dund ak APR mm. benn bokk yaakaar après l' élection de 2024 incha allah dootul mën a nekk. foog mu am coppite. by force. Mm-hmm. pour pour li ñuy def nii pour soi-disant wey nitu APR dina falu après ñu continuer. c'est not possible. Mm-hmm. la donne va changer. on va faire l' élection incha allah ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. change suñu dëkk. nga nekk APR falu da nga koy day changer nga nekk opposition falu day changer. et c' est vers ça qu'il faut aller. lu ma gëm la ok loo loo gëm la mais dañuy ñëw ci seen candidat yi ñu seen candidat bi ñoom di Amadou Ba fa yi sonn na trop gis nañ Souleymane Jules Diop génn na wax euh, Abdoulaye Bibi Baldé génn na tamit wax ñun ñaa ñëpp ñu jàppee ko daal comme candidat boo xamante ne daanaka dafa dafa taxawaayam daal des na dafa war a rassurer dafa war a assurer euh, naka nga gisee Amadou Ba ñu bëri jàpp ne ay ennemis ñu ngi ci biir APR lan la nañ ko tànnee la wala moom la ci jëmm ji ci boppam. <laughs> yàgg c'est pas xam nga à un moment donné il faut se la question bu ñu delloo ci ginnaaw on se dit mais c'est qui Amadou Ba kilifa bi mm-hmm. nu ngi mais c'est le technocrate mm-hmm. bi ñu bëgg a transformer en acteur politique mm-hmm. en politicien politicard il peut pas le faire c'est pas un politicien par contre par contre xulil nañ def attention ci benn affaire saway il a réussi un maillage en termes de relations interpersonnelles moom Amadou Ba et de relations humaines mm-hmm. xuli mm-hmm. maa la wax ak aw ci wàllu ay nit ay am di jàmb ba ci opposition bi yu mu seqal yàlla dëgg rek la bëgg mm-hmm. ba ci opposition bi ñu mu seqal laa wax ñëpp respecté ko ci seen biir respect mutuel boo xam ne am na digganteem ak waa opposition bi digganteem ak ay nit ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. maintenant la chose li acteur politique mën ci arrangé fulam na ci des moom bokk ci moom. Mhm. il peut pas pourquoi il peut pas il n'a pas fonctionné comme mhm, ça. existé wul noonu c'est l'école l'instruction l'université. le bureau euh, le bureau. c'est un bureaucrate donc après. léegi nag nga bëgg ko jël bëgg ko def defloo politique comme ni ngeen kaa defee nii du ko def. par contre ma. quelqu'un comme Amadou Ba, il me fait passer à quelqu'un qui a eu à comprendre et à pouvoir le faire dans le temps. C'est le président Diouf. Oui. Au début, Sénégal lu ñu doon wax suñu daan dégg suñu papa yi ah njool mi seen njool mii de ah seen njool mii de kii mais njool moom moo dem mm. ba am puissance am doole di wax ak nit ñi mais kooku dañ ko préparer nag waaw non ah. dans le temps d'accord waaw mhm. waaw mais non attention préparé mais kii aussi il a existé dans le temps ci lan ci tout ce qui est fonctionnalité d'État de l'imposition du service des impôts à di donc il a les données et les infos mais loolu benn pàcc la mhm. maintenant la réalité en face c'est quoi moo ne lu tax APR nit ñi bëgguñu ko mhm. ça c'est maanaam yaa je te parlais de la personne du personnage ou de la personnalité na ma baal en parlant de personnage c'est de la personnalité mais mhm. au la moom muul bi mu bokk moo baaxul maanaam fa muy waxee continuité ak. Mhm, mhm. li ko ngemb ak ka ko ngemb loolu la Sénégalais yi boole. tax yi ëpp boo ko waxee nag sama baay bi Abdou Ndéné Sall ak ñu mel ni moom dañ ma naan bàyyi di wax Sénégalais parce que yow doo Sénégal. mais Sénégalais yi ñu ngi ci mbedd mi. ñu ngi ci partout te la ñuy wax la ñuy jël di répété. dama la ni ñi ëpp ci Sénégalais yi lépp lu taq laale